bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk tënk boo xam ne kenn ku nekk su wéetee ak boppam dana xam fu mu cay fare lu mat di jàngat la nag kenn ku nekk bu wéetee ak boppam ndax alquranul karim mi nga xam ne ki mu bàyyikoo fi moom ak ki mu jaar ci moom jëm si ci nun lu mat a xam ci nit rek moo ko gën a xam ku dul moom moom tabaraka wa taala ndax moo leen bind nee na nit ñi ci alquran ñetti xaaj lañ wala yetti xeet xeet wii dañ koy niroole ak ker ker moom ku ca dugg naaj du ko laal fenn du gis naaj naaj du ko gis ba di ko laal lu mel ne ku dugg ci biirum néeg tëj ko kooku mbiram leer na ci ker la nekk ak koo xam ne mi ngi na dàng ci naaj bi gisut ker ker gisu ko waaye am na koo xam ne li ñuy wax ci ngiñ tangañ la def koo xam ne toogut ci ker gi toogut ci naaj bi lu mel ne kàddu nawet garabu kàdd bu nawetee xob yépp day roos soo toogee fa karam nga daa nekkit boo jàppee ne ci ker nga toog yaa ngi nax sa bopp wala ku dëppoo ak seen dal nekkut ci naaj nekkut ci ker yetti xeet yooyu moom la alxuraan di wax ki nga xam ne daa nangu gëm luñ ko ne yàlla la rek ni mu gëme dee lay gëme ne amuk suñu borom gi nim gëmee ne dana masa dee bis noonu lay gëmee ne dana tajeeg boroomam ëllëg mu xool lam fi nekke woon gannaaw bu mu xoolee pas-pasam digganteem ak moom boole xoog teg tànkam fa ko yàlla teglu nee na ñooñu lañ tudde ñi nangu te duutuñu bañ am ñoo xam ne nag alxuraan nee na seenu bañ daa àgg ci mel na ne dutuñ nangu mukk loo leen mën a wax day jaar ci nopp bi génn ca bee ndax duñ la ko nangul ba di ko déglu ñooñu seen mbir leer na mu am ci diggante bi nag ñoo xam ne ku ne war na cay jàngat boppam ba xam day bokk ci kuréel bi ma jëkk a wax gannaaw bu ko yàlla musalee ci bi ma mujj a wax yàlla nu ci yàlla musal moom la alquran di wax ne bi ma jëkk a wax alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bilaxirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum almuflixuun xaaj bi ci topp lànk kandaare loo leen mën a wax day jaar fii jàll ndax dañu dañ laa nanguluk sag am yow mi leen di wax bay nangu li nga leen di wax mooy alladina kafaru lànk sawaun alayhim a anzartahum a anzartahum am lam tunhir am lam tundirhum la yuminun xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gishawa wa lahum adabun adim ci seen diggante nag ka fa nekk moo tudd ci ngiñ cangañ mooy koo xam ne doo ko limaale ci bi ma mujj a wax te ak bokkam ca bee ñu jëkk a wax it am na sikk sàkk ci booy jëflanteeg moom ak bu jëfee ba jàll ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين muy kon mu'min ak kaafir ak munaafiq naafiq nag moom dafa mel ni ab jullit lay tuddoo waaye baat bi suñ ko seetee danañ xam ne ku jaaxal jullit yi lay doon ndax baat bi li muy tekki mooy mburngal am mburngal ku ko xamut mën naa xam ab tunnel mburngal mooy ñu liggéey ab aw yoon ab tëli ba jub doj woo xam ne mënuñu koo teggi te mënuñoo jaar ci kawam ñu bënn ko jàll gis nga bu ñu ko bënnee ba nga jaar ci biir ñi dëkk ci biir suuf si ma mënuñu laa limaale ci waa suuf te waa kaw suuf it gisatuñ la te moom yaa ngi ci kaw suuf si yàlla nañu ci yàlla musal waaye bu ñu ko gënee jegeel mooy koo xam ne boo waxee ci làmmiñam rek nga ne waajaa ngi nii kii moo mat a jàpp kii moo mat a àndal waaye bu jëfee it danga ne ah ki def lii day wax dëgg yàlla def na lu baax waaye nag fekk xol ba moom dara la ca fasut fasu ca dara li muy def daal gëmu ca lenn lislaam nag ni mu ko tuddee dëgg-dëgg mooy koo xam ne day feeñal ak ngëm yàlla ci kaw mbooloo moom dem ne fa laa bokk mbooloo moom dem luñ mën a gëm mu ne maag yéen mu ne moog ñoom ñoo bokk luñ gëm mbooloo mu mën a doon rek bu fa jógee dem ca meneen mbooloo te gëmu ca kenn xol ba moom la ca nekk mooy koo xam ne kenn mënalu ko dara boo wéeteeg moom bay wax saa ba waxee ba àggal mu ne waaye waaye moom saa boo ko déggee waxtaan wax day tàmbaliwaat ndax lee nañ ko teg nële moom la alxuraan di wax ne ñooñu nag dañoo am ak wéradi wéradi gañ wéradi nag yàlla daf caa maandu yàlla du dolli ak wéradi waaye day maandu ci wéradi gi ba xam ku koy faj kenn du ko faj wala la koy faj ëllëg mooy natt bu metti yàlla nu ci yàlla musal fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adabun alim bima kaanu yakdibuun bokk yi ab naafiq dëgg-dëgg am yambar lay doon ab tàppet lay doon li ko waral mooy bu demee foo xam ne jullit ya bari wuñ fa day am doyadik gu ma sëkk ci ne ab jullit la moom day wan ñooñu daal leneen li ngeen nekk lu wér la waaye du leen wan moom ak njulitam dëgg dëgg dëgg dëgg ñemewu ko wane wala rus na koo wane wala am na tax du ko wane loolu koo ko gis ci moom xamal ne jikkoy naa fekk mi ngi ci moom koo xam ne fu mu dem buñ dud ay jullit mu bëgg leen a baaxalal lañ nekk bëgg leen koo rafetalal léegi-léeg sax mu wax banaan ñun ñëpp benn lañu ay jaami yàlla lañ loolu dëgg la goo xam ne ak ay caaxaan moo ko laal nit ki bu dee ab jullit daa war fu mu dem ne man ab jullit laa lu ko ca fekk fekk ko ca bu demee feneen it lu foofa wéttiliku wéttiliku mu ne ab jullit laa bañ boole ko ci bu ñuy lim nekkee ab jullit la waaye bu ñëwee ci jullit yi it ba mu demee fee bokk na fa ba ne mook ñoom ñoo yam waaye bu ñëwee ci jullit yi it ñi mu ufe feeñal lim fas dëgg-dëgg da leen di wan ne ab jullit la ndax ay jullite ko jur rek yam ca loolu nag du doy doxin wow nag ku koy dox moom la yàlla tudde ne hum mufsiduna fil ard boo ne leen waaw yow foo loo doon mu ne jullit laa waaye damay tabax ay jàkka di tabax leneen kon ñoom la yemale ginnaaw ma ngay tabax leneen rek kon bëgg na ñooñu toog foofa ba ñu ñëw ci jullit gi moom la alxuraan di wax ne ida qiila tufsidu fi l ard qaalu innama nahnu muslixuun ñun ay defarkat lañ duñ fekke fenn fuy ñaaw nañ fexe ba li ñu tudde ay diine lépp nekk benn nekk benn moom weesu na diine moom ci ci yàlla jàpp te wax ñu ko ci alxuraan ñu gëm ko mooy inna diina inda allahi l islaam wa man yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaxirati min alxaasirin jullit yi moom foofu rek lañ yam toog fa waaye bokk yi naa fekk dëgg it mooy koo xam ne fu mu fekk lu baax loo xam ne yoonam nekku ca dana fexe fexe ba karajal ko bu dee dugub la mu def ci ay karaj karaj léeg-léeg ngay jëfandiku ba yàgg sa bañ ne teel ba ñeme ba yàgg duutoo ñemee lekk sax fa ndax dala cay wan yoo xam ne lay yam cay indi te dib jullit faw nga deng deng boo woyefee ab xol ak pas-pas bu dëgër kon day dox ci kaw suuf si ala samimi taxrib di saboté daal lu ne mu sabotel ko gars yi léeg-léeg mu wax baat boo xam ne it ren ba déwén ca la ñuy nekk di ko wax waxee ba dutuñ tala liggéey far waaye ñoom la suñu borom tudde as-sufaha mooy koo xam ne daal bu dee ci suñuy wax mooy ku xel mi di wëtt lekk-lekk te mën na fa yàgg du jof si buñ ne leen waaw tey ngeen a ñëw ci diine lislaam ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi moo ëpp yërmande moo gën a maandu ku ci teg sa tànk yaay gën a jub moo gën a nangam yu bari yim gën a def mu ne ah man de bu du woon ak diw ñoom ma bokk ci bu du woon ak diw ñoom ñi si ne daal ñoom daal ñoo ma jaaxal te gis na ne diw ñoom ña ña muy wax moo ne lim bu tuuti lañ ca waaye ñooñu lay def sukkandiku waaye naan diw ñoom te suñ mag bi daf koo leeraloon ci ay tombam dafa laaj ay kaang fóore yi ne leen alxuraan yaata maska moo ca nekk ñu ne ko maska yi moom mën na ëpp baat yi ndax léeg-léeg gis benn baat bu am yaari maska kon day mel ne soo doon wàññi nu baat yi toll rek mën ngaa wax ñaaram ba ñett ci ay maska mu ne la mu laaj keneen koo ko wax loola kooko ne ànd na mag diw foofu dañ fiy jàng ne nit woote sukkandiku li ci ëpp ca la diw jëkk a wax rek su fekkee la diw jëkk a wax juboo nga ca jëru nga jël kàddu dañoo bëgg xalaat yi bari ci xam-xam génn sëriñ bi na leen alxuraan ba mu jeex yetti maska rek la yetti maska mooy maska ak yat am ñu koy wax sawru masque ak néeg masque ak lonk daal ne leen loolu lu ngeen ci dégg ñu ne leen ñun koy di ko jàng rek xam ne foo fekk masque ak lonk moom waaw dana ko xëcc ñaare foo fekk masque ak yatit ëllëg koy xëcc ñaare masque ak néeg moom dëgg-dëgg jàppewuñ ko sax ak masque moom ndax du xëcc du xëcc duñ ko xëcc mu ne mooy ñetti yetti xeeti nit ñi alquran di wax allazina yuminuun allazina kafaru ak wa minhum man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir ma hum bi muminin mooy naafiq yi ne masque ak yat mooy ñi nangu gëm niñ gëmee dee lañ gëmee yàlla gëm yi ñuy gëm yépp te kenn mënu leen caa jële ñooñu masque ak yat lañ jub nañ te dutuñ juba di mukk dutuñ dëng masque ak néeg it mooy alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuun masque ak néeg moom ni mu mel ni muy mel mel na ko noppi tëju na ràpp xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gishawa daan ne masque ab lonk bii nag moo tax ambiya yi ñëwoon mursaloon yi ñëwoon ndax al muminuuna yi dañ leen a bëgg xëcc tàllal lëfeete kaw muy aw yat safaan ba bëgg koo dolli geneen lonk mu doon am néeg daan ne ku jóg nag na dem xool ba xam fu mu ca bokk am ku bëgg a tontu naan ko moom di fii la bokk faa ñu noddu sëriñ bu jóg bàyyi leen fa kon bind boobee ba léegi si daa war a am tontu kenn ku nekk di xam-xam ca bokk fan la bokk na ci jikkoy naafiq dëgg nag du am kóllëre du am xaritub daaw ak lu ngeen lu leen mën a boole ba ngeen séq ko it bu déwén ak see moom booleetu la ci ni muy limaale ci ay gaayam soo ko jàppalee ba mu am la bëgg itam noona lay def dootoo ko dégg sax bu ma la di ko gis dootoo gis ndawam sax far wala nga gis ko ca jëm déedéet waaye su la su la nee danaa danaa la béye boo nga tontul sa bopp danaa la bàyyi wala danaa la wor wala danaa la fexeel waaye bul gëm mukk bu ca tegee danaa la defal nangam wala danaa la dimbale ci nangam foofu it bokk yi ku fa nekk bay ba mu jóge fa ndax yàlla ne ci alquran am na ci ñoo xam ne dañuy dëlanteeg yàlla ne ko soo ma defalee xéewal soo ma ubbilee bunt yi wallahi danaa la jàppale ci sa ñu néew doole ñi wallahi danaa def nangam danaa def nangam waaye nee na suñ tàmbalee gis ay bunt yi ñu leen ci jëmee ci la ñoon ñaan yàlla rek ñu tàmbalee génne tànk bu bokkut ak bañ doon doxe ba yàgg sax far ñu ne wal bit jëm geneen wet gu bokkut ak gañ doon jàkkaarloo ak suñu borom di wax ak moom di ko ñaan wa minhum man ahada allah la in ataana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min asalihin ba aaya ba àgg moo tax kenn ku nekk war nay xool boppam digganteem ak ñett yooyu fan la fi nekk su fekkee mu'min la mu fexe caa sax nekk al mu'min xaqan al mu'minuuna xaqan it suñu boroom am na fu mu ñu ciy wax di leeral di gën a leeral aaya bi ma jàng léegi li ma doon jàng mi ngi ci sootul baqara boo demee ci sootu al anfaal da nga ca fekk innama al mu'minuuna allazina innama al mu'minuuna allazina foo ko fekk hum moo ne sa gannaawam buñ ko bu fa nekkee bu fa nekkul alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tulliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaana nee na jullit daal yàlla xam na ki naan jullit la wala ki gëm nangu gëmmu yàlla mën na koo xam mu xam ko moom yàlla dana ko xam mu xam ko waaye nit ñi mën nañoo xam ni ko nit ñi xamee bokk na ci buñ ne yàlla ak yonentam rek mu ne tekk ba xam luñ koy digal wala luñ koy tere rawatin jàng alxuraan buñ jàngee alxuraan moom nga daal di gis seenum xel gën a dal seen ak wóolu gën a dëgër waaye léeg-léeg nga dégg baat bu woyof saa su nañu fàttali ko réew mi lis alxuraan attewu fi réew mi lislaam attewu fi loolu moom ku ko wax bay mënu limaale ko ci naafiq ndax alxuraan du ko waar alxuraan waaru ko yëgu ko yëgut ak amam ci kaw suuf waaye loolu ay jëf nee na alquran ne dana ko firndeel alladina yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiquun ulaika hum almuminuuna xaqa lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim kon ku dib jullit nangu sax fa bu ko fa dara jéem a jële ndax bu dee wërsëg wuñ koy tàllal ba mu war faa jóge teg beneen tànkam cig naa fekk na xam ne yàlla la mu wax day wér day am lu mu yàgg-yàgg dana ko gis ulaika humul muminuun xaqan lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun waaye wa rizqun karim lu leen yàlla di jox loo xam ne dañu koy lekk ci seen ak teeyug bakkan muy rees ñu di ko jaamoo yàlla boo gisee koo xam ne la muy am daf koo gën a teg ci yoonu wuuti rek ba àgg ci alxuraan attewu fi wala lislaam attewu ci mii réew di ko woyefal na xam ne bu dee am na wërsëg it du risqun karim déedéet du wërsëg woo xam ne bu koy taral tàmbalee tey la jëm ëllëg wërsëg bu koy alak la tàmbalee tey jëm ëllëg yal nañu ci yàlla musal moo ne bokk na ci melokaani nafiqit saa bu jullit yi nekkee ci njàqare moom day bëgg lool ci xolam naan tey ngeen a woo yàlla mii ngeen doon tudd tudd yàlla yàlla yàlla ngeen doon wax boog ba xam daan la mal daraam de ci xolam la koy waxee léegi sax mu rëcc ko ndax da nga dégg ku ne réew mi ñu baax a ngi fi mu taxaw ne ñu baax a ngi fi de waaye boo demee barab sàngam ñu baax a nga fa waaye fitna nga fay am fitna ja fay am ak ñu baax ñu tëdd ci réew mi jutewul dara ak ñu tëdd ci réew mi muy wax ku baax ku baax la kuy def leneen leneen lay def waaye da waaye mbégtum njàqare jullit daal mbigam lay doon saa su nekk waaye saa su jullit yi nekkee ci mbégte it mu am lu ko naqari ndax safaan ba leneen yéene woon waaye bokk yi ma ne saa xamam naa feqit ci bis bu ñu nee indi leen bu yàggoon moom daanañu woote ab xare nga gis ñu ruusaano ne bañ a may metti daa wànneen dafa faxaj dafa tooy daa sibiru ba du dem waaye bu dee suñu jamono day woote woo ak njullit di woote woo pëstéef waaye bis bu ñu nee indi leen nangam ji ñu def ko fi sabilillah mu ne ah dee leen laaj luñ xam te di ko def fuñ dee leen laaj luñ mën te di ko def fuñ xam mbokk yi ki nga xam ne day joxe xaalis ne dugalal ma ci tel dugalal ko ci téléphone am ba mën a woote dana joxe xaalis waaye du gis bu muy dugg ci téléphone am du gis bu muy dugg ci téléphone am moo ne bu jëlee lu bari def ko ci téléphone am it suy dem du ko yëg ku xelam dem rek mu lonk la woo la wax ak yow ba yàgg téléphone bi ne ko li nga ci defoon jeex na fu muy jaar bay dem ak fu muy jaar du ci dugg gannaaw nag nit moo mën a def wàññi boobu ba ba di la jox loo xam ne doo ko laaj sa loxo te xam nga ne am nga ko sakkantum ak tabaraka wa taala waaye mbokk yi li ci gën a yéeme ci naafiqit mooy alquran waxoon na ko almunafiquuna walmunafiqaatu baaduhum min baad duñ am kilifa duñ ko wut duñ ko soxla te dañuy fexe ba kenn du ko amit yamuruuna bil munkari wa yamuruuna anil yanhawna anil anil maaruf wa yanhawna anil munkar yamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil yamuruuna bil munkar wa yanhawna anil maaruf mooy duñ am kilifa waaye lépp lu njëkkare mooy safaanub njëkk saa su ne ñu di ca xiir nit ña bokk yi ñaata weer la jullit yi xaar weeru koor ba dugg ca ba di ko génn bala ñu ko génn fan yooyee dañ naan ku wari ñëwal raxasoo si barab sàngam te foofu ay caaxaandoo nga fa nekk di ci xiir nit ñi kon yanhawna anil maaruf wa yamruna bil maaruf ku war ba noppi wala mu jóge ci tabaski gi doon jaamu yàlla wala mu jóge ci gàmm gi doon fàttaliku sallallahu alayhi wa sallam ak i jikkoom wala mu jóge ci màggal gi ak cant ngeen ne ku jóge ca xew wala ñëw raxasoo ji barab sàngam ñu fanaane faa caaxaan loolu it cig naa fekk lay dugg ndax day fekk luñ tere mu di ca xiir nit ñi naa leen kaay la ñu bokk ko def ba noppi di leen ca fayu lu cher lu bari te bu ñu leen indi leen fi sabilillah ñu ne loolu dafa bari ba ëpp dee leen laaj lu ñuy man te di ko def fu ñuy xam ñu ngi ciy tudd kilifa gu mag fii ci Tuubaa waaye bokk yi kilifa googee daawut wax ak ku nekk daawut wax fu nekk tam ña ca xam lu wér a wér a wér bari wut de ndax waxam bari wutoon noona lam doon xam lépp ne gu nag xam-xam fees dell taxutoon fu mu toll di wax ba ku ne di ko dégg di ko jot lente la ñu ko daan jox moom fii sa bila la ko daa def moom ba mu jeex am na jeexit ju leer moo tax na fekk yàlla ñu yàlla musal waaye foo ko fekkit day jéem a soppi dëgg di ko def ay caaxaan loolu yomb naa xam misaal bari na lool wala mu fekk loo xam ne dara du ci dëgg mu fas ko yéene def ak dëgg ba ñëpp gëm na dëgg la nañu xool rek weer wi di ñëw ci kanam tuuti des na weer wi ñu nekk ak wa ca topp ak wa ca toppaat buy jub wala ñu dugg ci bis bañ ci jëkk a dugg nit mën na caa wax loo xam ne àdduna ñëpp ci tukkee te ñi ngi ko tuddee fenu weer sàngam weer sangam daal fen ca wàññiwul dara loolu li muy tekki mooy fen ci boppam ak li muy rëy rëy rëy rëy rëy des na ko fexe wayafal a wayafal ba bu weer wa jàllee it ku ko ca mosoon mu neex mën nay fen di dem doonte fenu weer woowu am na yilla am na yilla ju tax ñu tudde ko fenu weer woowu yàlla nu yàlla musal ci ak naafeq te saxal nu ba faw ci ak gëm sunu boroom te sax ca ba faw te defal nu dégg ak topp yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin